Ah, dama ñëwoon tey ji ziyaare ji Serigne Mountakha Bachir won ko liste bi nga xam ne nii ci liste yi nga xam ne nii moo jiitu ci taalibey sëñ Touba ak opérateur économique yi jóg pour jël mairie muy mairie Kaolack ah, ñu tàggu woon ko amoon ci ndigalam bañ ciy dugg waxtu wu ne ñu di ko ko leeral ba tey nag biñ ko déposé ñu ñëw jébbal ko ko pour mu mu ñaanal ñu ci. ndax li mu wax fii mooy ah, Kaolack moom gannaaw Touba mooy dëkk yi mu gën a bëgg. ci Sénégal. yàlla yàlla aar la. yàlla yàlla sàmm la. yàlla yàlla wattu la. yàlla yàlla musal la ci bépp noonu. Ngimé ngimé Kaolack ngimé. ee saalum saalum génn leen marjaana gis nañu teen massa coono sonn ngeen seen doom ji woona leen nit amul lu dul dëkkam moom loolu daf gëm moo àggali kër de sambu teele woona ñëpp li deewoon lépp mu dekkil sëriñ mbub na fépp waruma ndaw yi góor ak jigéen soxali dëkk bi yaa ci gën saalum may gën si dëkk waaye bu ñu toppee may ñëw fii kokki 1976 kañ dama la néeg ba ma dëkkoon moo nekk nii ah na ngeen def yéen ko yéen yéen a ma wutu ci néeg bi man fii sama néeg la woon waaye mais ñun biñ fi nekkee néeg bi dafa gënoon a yaatu <laughs> dafa mel ni sama néeg la tey bu ñu doon fanaan ki daara gi fii laay fanaan mën naa fee fanaan ku xam Serigne Mboup xam ne produit wu daara la te produit wu daara la boo xam ne daara euh, sawar na ci fësal ko wane ko ndax wone na ni kon daara day defar nit te du moom dong am na ñeneen ñoo xam ne fi la ñu jaar lépp lu ñu am ñun kokki la waaw lépp lu ñu am rek kokki defaluñ dara kokki lu ñu am rek kokki euh, fii la njàng alxuraan te yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne man allamaka harfan fa huwa mawlaaka waaw loolu mooy ku la jàngal rek moo la moom ku la jàngal benn arab moo la moom. sëriñ suñu fierté la en tant que euh, euh, ay ndongo daara yu nekkoon ci daara ji. di leen wax ne leen ne ñun dey gëm nañ ne nitu daara war naa mën a yor réew mi ndax sëriñ boobu. lu ma ci tax a dugg. li ma ci tax a dugg. dañoo jàpp ne. dañoo jàpp ni. nitug daara. nitug daara. warta mën a. warta mën a. Eh, yor dara. yor dara. warta gérer dara. wala warta gérer dara. kon nag. kon nag looloo tax looloo tax ñun ñu futtiku ñun ñu futtiku di ko jéem di ko jéem bëgg a wane bëgg a wane ni réew mi réew mi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk wërta nekk. wërta nekk. benn pàcc bi benn pàcc bi. ñoo war a nekk nii. ñoo war a nekk ni beneen pàcc bi beneen pàcc bi. ñoo war a nekk na ñoo war a nekk na le. waruñu wax ne. waruñoo wax ni. ku jàng ci daara. ku jàng ci daara. waroo yor. waroo yor affaire publique. affaire publique. waruñ ko wax waruñ ko wax. loolu nag loolu nag. ñun rek ñun rek. ñoo ko mën a taxaw ñoo ko mën a taxaw. mu deñ mu deñ. te loolu tamit bu deñee. te loolu bu deñee. dina dimbali dina dimbali. fi ñu toll fi ñu toll. dimbali dimbali. ñii ñëw ñii ñëw. ñu xam ne. ñu xam ni ñaar yëpp lañ war a boole war a jàng. dañoo war a jàng adduna. jàng diine. jàng diine. boole ñaar yëpp boole ñaar yëpp. loolu daal loolu daal. moo ma ci dugal sëriñ bi. sëriñ tamit. sëriñ tamit nekk doomu Kaolack nekk doomi Kaolack moom tamit di jàppale waa Kaolack nee moom it di jàppale waa Kaolack ñu koy ñaanal nee sëriñ ñi ngi lay ñaanal ci jëmmi sëñ Touba ci jëmmi Xaadimu Rasuul mébét yi mu am mébét yi nga am fii ci Kaolack fii ci Kaolack ak senegal ci Sénégal la jàppale ko ci yàlla jàppale ko ci juddoo fa laa mm-hmm. fa la sama papa amee teraanga mhm. kon man maa war engagement ne damaa war a defar Kaolack loolu rek doy na mhm. Mhm. looloo ma jëloon engagement bi ma njëkkee woon mooy jël chambre de commerce Kaolack ñëpp xam nañ ne bi ma koy jël chambre de commerce yi kenn dégg ko Sénégal ñu di ko wax waaw wax dëgg yàlla loolu war nga nu ko reconnaître chambre de commerce Kaolack euh, mu ak ay moyen moom moo commencé euh, booster chambre de commerce yi te la preuve mooy euh, bi bi ñu xoolee président de chambre de commerce yëpp. Mhm. gis ni ma développé chambre de commerce Kaolack. Mhm. dañuy ñëw def ma président de l'union. Mhm. te déggoo ci campagne déggoo ci xëccoo. amul woon candidat. Mariama bu liggéeyoon ba Kaolack mel ne pare man ma gis ne mën naa ko yóbbu fa sut gétewul dara ak loolu gétewul que tey dañ maa war a teggi teg affaire bi du ay du ay genre dam yee bii teg la bii teg xam nga lan la. affaire yow nga am euh, gis-gis nga am ambition pour kawla léegi nag Kaolack waaye seen bopp ñun ñoo leen war a wax lu tax man maa leen war a wax lu tax ñu jox ma ko Mariama Sarr moo war a wax lu ko fa taxa toog te Kaolack dafa soxla li ñuy wax vrai fast track suñuy songonoo Kaolack ku ne da koy songonoo par quartier ak projet boo xam ne nii duutuñ nekkati fi naan sëriñ boobu lii wala diw moo nekk nii pour que ñu mën a dem très rapidement parce que parce que imaginez-vous maa ngi la koy wax Kaolack 1922 1600 bateau ñëw nañ ci port bi mu nekk deuxième port de l'AOF e 2010 bi ñuy jël port bi deux bateaux moo daan ñëw mais tey ñun ci dix ans yi indi nañ ko ba 300 bateaux ça veut dire multiplier nañ ko par 150 fois la capacité la capacité mais taxul mu àgg. ci capacité ba mu nekkoon 1922 kon ñoo tax ñu yaakaar ne dañu soxla ay leader yu am xam-xam yu am détermination yu bëgg kaw la mu nekk ay nit yu ñu xam ci seenu njub am compétence yu mat kenn ku ne ci ñun war na mën a nekk maire ñun loolu mooy suñ programme kenn ku ne war na mën a représenter war na nekk maire ci ak ci côté yu ne kenn ku ne dañuy suñuy songanoo Kaolack ku ne da koy songanoo par quartier ak projet boo xam ne nii duutuñ nekkati fi naan sëriñ boobu lii wala diw moo nekk nii pour que ñu mën a dem très rapidement parce que Kaolack dafa soxla li ñuy wax vrai fast xam nga ñu bari da ngay dégg tey ñu naan way dafay jot maire bi pour mën a def ay affaire xam nga tey maire man bu ma ko doonoon Kaolack mm. man samay affaire day gën a yàqu Kaolack ndax lan yaakaar nga ne mën naa faa amati marché boo xam ni maire yi moo koy joxe ma jox ko sëriñ boobu su ma fa amul woon terrain bi moom moom mënatumaa affecté sama bopp terrain. c'est-à-dire sama ngaañ la. mais loolu donc sant yàlla su la yàlla defalee ba nga xam ne wóor na ne yow war ngaa mënoon tey boo toogoon sax ne liggéeyatuma liggéeyatuma toog damay jaay lépp liggéeyatuma yàlla dimbal na la loo xam ne ay location yoo xam ne da nga ci mën a fay say doom wala jàngal nga say doom ba ëllëg. kooku boo jëlul loolu nga delloo ko. ci xale yi nga xam ne nii mën nga leen a jàppale pour ñu liggéey wala nga delloo ko. yàlla wala nga faye ko bor dëkk bi la bi la bi la bi la dem gis Kaolack mu yàqu dama jàpp ne yàlla mën nañ ma ko ci isaab yombul xeyam bu ma ci jéemul li ma ci war a jéem te li ma ci gën a ñor mooy am ci résultat gañe bi mooy yoon wi waaye li ma gën a tiitloo mais nan laa koy gere moo tax tey jii sama découverte yi may def yëpp di ko dem seeti ñoo xam ne nii danañ danaa mën a ànd ak ñoom pour que ñu bañ a tas yaakaar. su ma amee dara ne dama koy def dama ciy jiital li nga xam ne nii moom la moom la ñu yàlla diggal gis nga politique yonent bi am na lu wax nee na man la lam yahtam bi umurul mu'minina laysa minna ku topp tawul mbiru jullit ñi bokkoo ci ñun waaw dama ciy jéem li ma war a jéem nag li ci des kawlu gaa ñooy desee gis nga may mun man stressé wu ma tiitu jàqu ma gis nga le ñu ma gañe nga ak ñu ne ma gañe woo c'est la même chose ci man su ma waree tëdd nelaw danaa nelaw la veille danaa nelaw xam nga lan lay tiit bis buñ ma nee yow la lay bañ nag am gàcce boobu nag dinaa tiit li ñuy def Kaolack rek foire ba ma koy teg première édition dañ ne ma mënta nekk trois cent mille visiteurs yuy ñëw jóg visiter foir bi jënd ticket ñëpp ragal ko naan ko fi dugg kii jinne mboosee fi nekk nangam fi nekk nangam ak nangam ma ñëw ñeme ko dem fekk usine boo xam ne su Sotexka depuis kenn mësu ko dawal trois ans taxawul mun depuis deux mille dix ba léegi ñu ngi koy doxal taxawul. en dehors de ñun am na yaay beaucoup d'usines usine d'arachide y a plein de sos yoo xam ne encadré na waaw wax dëgg yàlla nag loolu bu ñu ko defee am nañ droit yéeg laaj bu ëpp li ñu nekkee loolu rek. mais ñun Kaolack fi ñu ko bëgg a yóbbuwaat bu ñu paree dañuy fay créer lu mat 500000 emplois suñu état jàppalee Kaolack 5 ans mën nañu fa créer 500000 emplois. Mhm. création d' emploi mooy créer ay unité rien que bu doon li muy consommé seen Saloum li ñuy consommé fexe nañ ba 50 pour cent ñu di ko fabriquer Kaolack rek mën na 500000 emplois tout est possible. gis nga ñun ce qu'on demande à l' état c' est cadre cadre bi gis nga bi ñu demee Dubaay ñëpp ngi jommi mais lu fay jommi amul. Dubaï dafa créer cadre bi Dubaï ñu ngi nii ñun sénégalais fa demoon ñaata lañ fa dépensé avant ñu fay jógee ñaata imaginel ñaata sa de d'avion ku fa dem te sa billet d'avion matu 500000 amul ku fa dem te dépensé fu lu mat 2000 euros amul ci sénégalais ñu defar ci seen dëkk da nga da jël taxi da nga fay hôtel da nga def lépp je pense que économie tey foire bii rek ñu nekk mais taxi yaa ngi koy xaar da ngay wut taxi doo ko am jakarta yaa ngi koy xaar hôtel yaa ngi koy xaar. restaurateur yaa ngi koy xaar mais loolu mooy emploi gis nga tey moment bi foire bi am jàppal ne 3000 emplois dana créé wu Kaolack ci diggante bi 3000 wala 4000 sax dana ko ëpp mais loolu nag buñ ko pérenniser te ñun dañoo bëgg Kaolack bu ñu paree day nekk ville d'événement parce que Kaolack yàlla def ko def wax nga léegi. ville Carrefour mu nekk Carrefour nga man fa créer lu la neex. am nañ cartographie boo xam ne xam nañ fii taa xam nañ tax muy taa xam Kaolack tax muy taa dañ ko nivelé wu gis nga tey. même boo amul tali nga wut say peel nga niveler dëkk bi su tawee munoo ne dana taa du taa waaye du am taataa bu oto mënta jàll léegi nag mu des beneen affaire mooy affaire assainissement pour ndox mi man a dem première anne danañ fexe ba du fa amati taataa booy dugg ci biir kër yi loolu danañ ko fexe hmm. suñu objectif mooy niveler dëkk bi ba ndox mi circuler loolu danañ ko def deuxième bi mooy wax ak état bi mu def programme d'assainissement boo xam ne ndoxu taw bi au mun ñun ñu ko jël di ko sànni ci géej gi ñun danañ ko jël yóbbu ko kawlax am na artères yu bari yoo xam ndox mi mën naa dem foofu ñu mën ko réutiliser. li ñu bëgg mooy suñu état bi jàppale bu ñu paree Kaolack yépp dañuy fexe maire bi mooy nekk l'intermédiation fexe ba kenn ku ne am sa titre foncier xam nga nit boo amee titre foncier kon am na valeur te gis nga xoolal kër yi kër gu ne miiru clôture am moo gën a cher. bu doon investir dala ba ci tali bi ba kër ga dootu taati miir mais nag munoo ko def maire yi dañoo nekk ñoo xam ne nii yow boo amee si kanamu kër nga embellir ko defar ko ba mu rafet teg fay jardin te jardin sax ñu ñëw ne la dindil wala fayal yow li nga xam ne yaa ko war a def nit ñëw defal la ko mais da nga ko war a ñëw yow jox ko bonus soo amee koo xam ne ni yàlla may doon na ko mu jël ay làmp yu rafet teg ko buntu këram taal ko ba mu lañ dañ koy encouragé loolu danañ defar lampe mbedd mais danañ encouragé nit ñi defar ay lampe seen buntu kër mu leer tey bu fekkee yow yàlla mu ngi toog nga toog xam nga tey ñu bari dañuy nekk naan woy maire yi bokkut ak affaire mais affaire moo gën a jafe affaire bala ngaa am loo dépensé mooy danga ko am bénéfice mais la maire da ngay jël loo xam ne 100 pour cent bénéfice la 100 pour cent li nga war a def mooy da nga maîtriser say li ci des jël ay emploi pour pour politique ñun Kaolack bu ñu ko yoroon emploi bi maire bi am danañ ko tripler. Hmm? danañ ko tripler ba pare danañ ko tripler laa wax ci suñu kii dañ ko tripler ba pare kenn ku ne da nga fayu te budget bi dina yokk commerçant yi soo fexee ba yow ñoom li ñuy fay ci patente ñu xam ko nga investir ci ñoom ci seen i marché ci seen i yoon ci seen i taxe ci Jakarta yépp li ñuy fay ñoom ñu ngi fay ah. mais li ñu fay dañ ko tegul bët moo tax ngay gis ñu ci làqatu dañ fay parce que li Kaolack li mu war a jël ci recette ci paiement c'est même pas 10 pour cent de la capacité ci commerce bi mais gisuñu ko sur les cinq ans à bala ñu ko pare budget bi dana àgg di milliards te fonctionnement bi dana nekk fonctionnement actif mooy doo fay kenn te kii li muy fay amul rentabilité xam nga soo demee maire yi bari nañu ñuy fay dañuy xëy tëdd seen kër parce que liggéey l boo nee da ngay jël ay nit yoo xam ne ñooy toppatoo affaire voirie yi amoo machine bu ko defar amoo dara mais munoo force nit ne ko ñëwal mais il faut ale au travail gis nga dès que mairie je t'assure mairie peut créer beaucoup de dynamique mën na andi xaalis bu bari mais na nekk nit ñi di ko gis te mairie bi ñun ni ñu ko nar a gérer c'est simple c'est très simple mooy on a quatre-vingts personnes. on essaie que fii li man léegi laay commencer choisir comme sama équipe de travail ku ma tànn rek am nga loo mën a gérer kaw la parce que dañu bëgg un conseil un projet man kenn ku ne sa xam-xam danaa ko exploiter. moom euh, ndimbalal yàlla la loo xam ne daal nan ko ñaanal yàlla mu gudd fan 30 ans ci ginnaaw ku mës a génn daara boo génnee dañ laa ñàkkal fayda tey bu doomu daara bu ñu demee ba complexe boobu ñu décomplexé c'est grâce à lui. ngi mee ngi Kaolack Ngimee Ngimee Saalum Saalum génn leen Marjaana gis nañu teen massa coono sonn ngeen seen doom ji woo na leen nit amul lu dul dëkkam moom loolu daf ko gëm moo àggali cœur de ville sambu teele woon a ñëpp li deewoon lépp mu dekkil sëriñ mbub diw na fépp reforme ndaw yi jigéen soxali dëkk bi yaa ci gën